jéggi na si yoon wàcc na na Tapha Tine dóor jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement lañuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen andil leen li nga xamante ne bii moo gën a fës ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb ku ci nekk fa nga nekk lan lay fekk nuyu la ne la asalaamaaleykum di euh, jaajëfal suñu xarit suñu rakk ndey Mbacke tey nag xam ngeen ne day noppalu ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam wante xam ngeen ne revue de l'arène bi dañ ci ànd ak Iwil Zador mi nga xamante ne bii Abdou Aziz Al Amin Ala Ndiaye moom moo ko jiitee Iwil Zador nag diwlin la ba nga xam ne sénégalais yëpp ràññee nañ ko ndax baaxaayam wante Zador ba léegi dañuy defar spaghetti dañuy defar macaroni wante dañuy defar li nga xamante ni mooy vermicelle ñu ne déet mu teg ci attaaya Zador kon daal Zador moo ko yor Sénégal yëpp d'accord nañ ci loolu ba léegi ñu ngi ànd ak euh, Eau ndox mi nga xamante ne bii moo ñuy aar ndox mu set sel neex ba pare oyof kon daal Eau ndox la ma nga xamante ne bii na ko sénégalais yépp wuti ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne bii moo gën a fës ci li ëttu yéenekaay yi bind tey nag mooy euh, talaata tombe ak juróom-benni fan ci weeru juillet atum 2021 euh, fi ñuy njëkkee mooy Jules Baldé Jules di mag ci ki nga xamante ne bii moo di euh, Ama Balde nee na Jules Balde nee na Modou Lo euh, bu dawul xam li tax mu wax loolu nag nee na arbitre bu soufflé bu taxawee Ama dina dox ci kawam jàpp ko daan ko jël ba nga xamante ne bii jël bu euh, gaaw la ñu laaj ko ndax combat bi mën naa yàgg mu ne combat bi du yàgg mën naa bañ a yàgg bu amaat bu mu du taxawee combat bi du nekk lu yàgg ba pare ñëw na nee na incha allah vingt cinq décembre. amul kenn ku leen mën a traité andi li nga xamante ne bii moom mooy jaan ji ci làmb ji nee na jaan ji dañ koy jëlee golore jaar ak moom Guinée Bissau soo ko andi fi nga xamante ne bii moom mooy arène nationale mu ne Lac na bàyyi Lac 2 incha allah du mës a bëre ak ki nga xamante ne bii moo di Ama Baldé ndax làmb du leen mës a boole ndax li ñu sekk moo waral mu wax yooyu la kàddu bu ñu jógee foofu dañuy seeti ki nga xamante ne bii moo di Gris Bordeaux numéro 2 ñu gën koo xam ci Maodo Gris 2 nag xam ngeen ne moom moo daan Abdou juuf les géants de Waalo daan ko jël ba nga xamante ne bii jël bu gaaw la. nee na damaa furlil ki nga xamante ne bii moom mooy sama mag di euh, Gris Bordeaux numéro un nee na kele bi ma daanee abdu Diouf nag sama grand frère Gris Bordeaux numéro un moom moo ma ko jox moo ma ne woon boo toogee 30 secondes xaar abdu Diouf ñëwul demal nga jàpp ko daan ko ñu daal di ñibbi loolu la ki nga xamante ne bii loolu la Gris Bordeaux numéro 2 yëkkati ci journal bi bu ñu jógee foofu dañuy jàll ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ak Sokosim combat boobu Habib Farhat promoteur bi régularisé na ko pour la 4 août incha allah bu ci yàlla àndee Serigne Ndiaye 2 nag di champion ba nga xamante ne bii def na ay performance ci bëre simple jël juróom-benni gala loolu mu def ci bëre simple bi loolu la bëgg a continuer ci li nga xamante ne bii moo di bëre dóor bi nee na incha allah digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sokocim combat bu nar a neex la te bu ko jàppee du ko taxawal euh, Sokocim nag gëj a bëre euh, atum 2014. 2014 la Sococim mujjee bëre assurance bu mbuur moom moo ko mujjee daan si nekk champion ci làmb war a ñëwaat wara a wonewaat leneen la nga xamante ni bii lu bees lay doon ci làmb mi ngi noonu ay ca bu ñu jógee foofu ñu jàll ci ki nga xamante ne bii mooy mbay guy gi gannaaw ba mu daanee Mame Balla loolu amee woon fële ca stadium Iba Mar Diop Bawol production nga xam ne Assane ay moo ko jiite moo taxawaloon boobule combat nee na combat bi waaj naa ko comme ni ma ko waroon a waajee ak samay mbokk Mame Balla sama grand frère la respecté woon naa ko trop wante dama ko gënoon a bëgg li nga xamante ne bii moom mooy combat bi loolee tax bi arbitre soufflé seetlu ne euh, li ma takk ci ay téere daf may gêné ma tekki ko tege ko nale ñëw jàkkaarloog Mame jàpp ko daan ko daal di ñibbi nee na nag kuy contact ak ki nga xamante ne bii mooy tafaatin Tine mënoo néew kattan Tapha Tine laa doon contactal ci boobu boobule combat li nekk ci kanamam nag nee na dafa bëgg tafaatin daan Boy Niang ñu jox ko Boy ñaa mu defal ko bagage daal di jàll ci leneen mbay guy gi moo yëkkati yooyu le kàddu ci biir suñu làmb ñu jàll nag ci écrit Fass Ndakaaru gannaaw ba ñu lëkkaloo gis nañ ne lëkkaloo boobu fi mu toll nii jur na njëriñ ndax Olof Njaay nee na mbooloo mooy doole weekend bi passé ñu amoon ñeenti combat ñeenti combat yépp ñu am ci ñeenti ndam nag macha allah. ki nga xamante ne bi mooy général bu Fass moo ubbi ndam li ki nga xam ne moom mooy Gris 2 moom moo ko tëj gannaaw ba ñu seetloo ñaari écrits yi ak yi passé ñu nekkoon ci ay gàllankoor nekkoon ci ay jafe-jafe loolee tax ñoom ñaar ñu ànd booloo euh, doon benn gis nañ ne ba banu booloo ba léegi nag machine bi mu ngi dox macha allah ñu gis fa Père Kati Diop mu leen di entraîner ak ki nga xamante ne bii mooy Ibrahima Mbaye ak soose di ay coach yu expérimenté yi nga xam ne seen xam-xam ñépp leen ràññee ci wàllu làmb loolu la suñu làmb bind ci écrit face ndakaaru tey bu ñu jógee foofu ñu jàll ci ki nga xamante ne bii moom la mbay guy gi daan muy Mame la sekk na waxtaan bu yaatoo yaatu ak euh, waa suñu làmb nee na combat bi lépp lu ma ci waroon a def def naa ko ci préparé naa ko nu mu mësta préparé komba sax wante ku ne xam ne ne combat bi ban ko jàppee ak léegi dafa yàggoon ba lépp lu ma amoon def naa ko ci combat bi nee na nag damay sant yàlla bu baax moom mi nga xamante ne bii moo ma doon may ndam combat bi suñ borom moom moo def ma ñàkk lépp lu ma ci waroon a def def naa ko ci combat bi nag Mame la nee na doole feeñu ci képp ku ne doole feeñ na ci rek xamoo làmb ndax mbay guy gi jàppante naag jàppante jàppante ak moom jàppante bu yàgg ba nga xamante ne bii mënalu ma dara erreur nag mënul ñàkk ci làmb erreur bi ma def la mbay guy gi exploité daan ma maa ngi ko ci félicité bu baax a baax nee na mu ngi gërëm champion yi nekk foofu ci Pikine mbooloo yëpp ku ci mel ni Tonnerre ak Cobra 2 ndax jàppale nañ ko ci combat bi ñoom la doon kontaakal mi ngi sàkku tamit ñi nga xamante ne bii ñooy saytu wàll yoon ci réew mi ñu bàyyi bébé Diène ak bébé Saloum ak ki nga xamante ne bii mooy kaw kaw Cissé ndax ñoom. dañoo bokk ci làmb ñu libere leen ñu delluwaat ci seen mbokk mën a dellu siwaat ci làmb ji ba léegi dañuy continuer ak ñi nga xamante ne bii ñooy waa suñu làmb ñëw nan ci euh, rubrique boobu nga xamante ne bii euh, chaque semaine lañ koy def di ci dalal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu làmb tey nag ñi ngi dalal Abdou Aziz Alé Ndiaye Al Amin nekkoon promoteur ci làmb ji jiite entreprise bu mag boobu ñuy wax Jador moom la ñu dalal mu ñëw tontu ci ñaar fukki question ak juróom yi nga xam ne waa suñu làmb posé nañ ko ci ñu jukki ci rek quelque questions yi nga xamante ne bii moom lañ ci gën a gën a jàpp gën a jàpp ñu ñu laaj ko ki nga xam ne moom mooy Aziz Alain Ndiaye ne ko lan mooy sa défaut mu ne xanaa am confiance ci ñëpp nee na su ma gisee doomu aadama dama koy jàppee comme ni ma jàppee sama bopp loolu mooy waral parfois may am ay déception ci doomu aadama yi beneen question bi ñu laaj ko euh, lan mooy li nga xamante ne bii euh, moom nga gën a ban façon nit nga gën a bëgg àndal sooy tukki mu ne nit ba nga xamante ne bii nit buy wax dëgg la te du wor ñu laaj ko beneen question tamit euh, lan mooy li nga xamante ne bii moom mooy say slogan mu ne dëggu wala sincérité moom mooy sama bàkk lool la ma ñëpp xamee te loolu laa bëgg continuer di dundee ñu laaj ko li nga xamante ne bii mooy objet yi nga xam ne mënoo dem te yóbbaale woo ko mu ne benn sama oto la ñaareel bi sama li nga xamante ne bii mooy sama téléphone ñaari daal mënumaa dem bàyyi ko gannaaw sama oto ak sama téléphone ba léegi ñu laaj ko ñaata xarit nga am ci biir euh, journal bii di suñu làmb mu ne juróomi xarit la am ya nga xamante ne bii fu mu toll mu ngi waxtaan ak ñoom di diisoo ak ñoom loolu lañ jukki ci li nga xam ne moom la moom la suñu làmb seek ak Abdou Aziz bu ñu jógee foofu nag dañuy jàll ci euh, Ndandi Fall ak ki nga xam ne moom mooy euh, plaqué ki ko taxawal mooy mm, jàppandal production loolu nag mu ngi war a amee fële ca Kaolack ndàngaan ñu seetlu ne fan yi promoteurs yi masallah ñu ngi yokk foofu ca Kaolack ndàngaan di euh, beneen. di beneen di beneen euh, facet ba nga xamante ne bii waa Kaolack duggee nañ ko ci làmb dañu gisoon ne raison yi li ñu ëppoon di tëgg mooy ay làmb simple mais gis nañ ne Kaolack moom promoteurs yi ñu ngi dugg ci li nga xam ne moom mooy bëre dóor bi ñu leen ci encouragé bu baax a baax jàppandal production taxawal diggante ki nga xam ne moom mooy euh, Ndandi Fall ak euh, plaqué bu Kaolack bu Kaolack foofu la war a amee ca Kaolack ndàngaan incha allah bu ci yàlla àndee ñu gis ne nag Ndandi Fall. annoncé woon na ne bàyyi na làmb mais jëlaat na beneen avance digganteem ak plaqué incha allah waan daan jàppandal tëgg loolu le incha allah foofu ca Kaolack ndàngaan kon daal mën nañ wax ne mbër boo boo bëree ba pare bul topp li nga xamante ne bii mooy sa fuuga wante bul topp sa mer ta toogal waxtaan ak sa staff toogal ba dal soog a def li nga xamante ne bii mooy euh, sorti bu ñu foofu dem ci ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye ak Eumeu Sène loolu les arènes lañ koy fekk. te Abu Nduur euh, jiite ko les arènes ñu fekk fa Balla Gaye Eumeu Sène ak moduloo Lo Abu Nduur dafa posé question dafa ne ñett ñi kan moo ci bête noire morooma ndax gis nañ ne Balla Gaye Eumeu Sène daan na ko deux fois Eumeu Sène Eumeu Sène daan na Balla Gaye deux fois Modou Lo daan ki nga xamante ne bii mooy euh, Modou Lo Balla Gaye daan ko deux fois loolu moo tax mu xëy samp laaj ne diggante Modou ak ki nga xam ne moom mooy Eumeu seen ak Balla Gaye kan moo ci bête noiru moromam loolu nag dañ koy bàyyi ci euh, loxoy internet yi dinañ ci indi li nga xamante ne bii moom mooy ay tontu loolu nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb fii ci Leewtoo TV wante ba la maa dem damay jaajëfal sama jigéen sama xarit la grande dame la battante la dame de fer jigéen ji nga xamante ne bii nammul daray góor kooku mooy Khadija nekk fële ca Tëngéej borom boutique sopp Serigne fàllu Mbacke borom prêt à porter yu baax yi maa ngi koy bëggee bu baax a baax taalibe Serigne fàllu Mbacke bëgg Serigne fàllu Mbacke loo ko mën di wax lu dul Serigne Fallou gisul loolu Fallou aw bu sa jaxrew ba rek la bëgg càmbañal Mariam Kunta bàyyi soxna mbenn kenn du moom nee naa ko Serigne fàllu nag mooy docteuru soxla yi. ku nekk am nga sëriñ wante ku tiit mbaa nga jaaxle sëriñ fàllu rek ngay woo loolu la soxna Khadija xam ba jël léppam jox ko soxna xadisa maa ngi lay bëggee bu baax a baax la grande diva yàlla na si jàmm yàgg dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène jaageen jëf ñoom ñaar jéggi ni junior wàcc na na Tapha Tine na Tapha a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang